Sénégal nar a tàmbalee exploité pétrole ak gaz buñ fi jot a feeñ loolu nag bokk na ci lu waral bile lëlu ñu ciy jàngat ba noppi itam na cee joxe ay xibaar yu ñeel wàllum courant député yi taw fi rek ngir yombal bile programme te lañ ca bëgg rek mooy yombal ak matal courant gi ci réew mi yëpp. tey dañu ñëwoon pour def ko si wàllum accès à l'électricité maanaam suñu mbokk yu nekk si gox yi ak gox goxaan yi ni ñuy def ak yan projet ak programme la ñuy teg ngir. mën leen permettre ñu am accès à l'électricité électrifié nañu lu tolloog juróom benn junni ak li teg si localité am na tamit yeneen localité yu des mais def nañu benn lu ñu woowee plan d'urgence bu ñuy permettre incha allah fii ak 2025 ak euh, ak ak yeneen système yoo xam ne ñu ngi koy réfléchir pour mun ko mettre si euh, à disposition askan bi ci ndigalu jëwriñ bu ñu dénk wàllum énergie ñu nar cee lëkkaloo ak député yi ci pencum ndaw réew mi ñu ñëw rek dugal seen ay yoxoo ci bile programme ngir rek teewal fi askan wi ci noonee ñu bëggee jot ci meññeenteef yi constitution dafa wax ne lépp loo xam ne meññeef la bu am suñu réew population yee ko moom comme ñun nag dañuy représenter population yi assemblée nationale foofu la ñuy wax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa nguur gi loolu war na oyof ci ñoom de telle que lépp loo xam dañ koy produire mu bañ a cher bu ñëwee ci population yi donc pétrole ak lu am importance la mais dañoo bëggoon waxtaane ko ñun député yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo nekk au niveau du ministère du pétrole le gouvernement pour ñu xool naka la ñuy def pour que lépp loo xam ne wax dëgg yàlla am nañ ko foofu que population yi yépp mën cee gis seen seen seen bopp. ci bile programme accès universel à l' électricité wu Sénégal nar cee lëkkaloo ak commission bi saytu wàllum énergie ca pencum ndaw réew mi lañu ñu cay xaarandi rek mooy motal courant gu doy te wóor ci fépp ci réew mi gën a daj itam ci gox goxaat yi fileek atum 2025.